alaaji Papa Dieng la ñu toogal mu mel ni bis bu mag ca lamb moo lay génne ndax ba lamb jubee ba tey gisuma laal tey laa la gis Double Moteur Quench ñu ngi ci géew bi yaa ngi toog jàkkaarloog ñoom noo gisee ñaari xale yi ne ci géew bi actuellement muy Double Moteur nga xam ne daa quelques instants ñu bëre waaw xam nga combat bu doy waar la combat boo xam ni ku ci nekk dafa am ci loo yaakaar pour ñëw pour am ndam waaye boo seetloo seen taxawaay seen jëm nga xam ni kanc bi nga xam ni moo ko expérience jëkk ko ci làmb ji préparé na combat bi bu baax a baax a baax a baax donc double moteur ndax xam ni ki muy bëreel du mag trop eggagul ci làmb foo xam ni jeexal ci làmb ji moo ko gën a jigee dugg ci làmb ji donc na def attention sa xale la boo xam ni moom tamit mi ngi def ay résultat mais adversaire bu mu dajal dafa sérieux te booy dajal adversaire bu mel ni Ketch ëpp la expérience sooy bëree moom da nga war a dal tey seet ni ngay bëree ak moom loolu rek moom moo ci jaaxal sinon double moteur il est en forme wane na ko sax mais comme li ma la wax daanaan lay bëreel te xam nga daanaan booy bëree moom il faut nga jox ko cër ba xam li mu indi pour seet nooy bëree ak moom waaye boo jógee sàggan ba jox ko sa bopp dina la egg foo xam ni bala nga xam ni làmb ji jeex na nga egg loolu nag dafa doon lu doy waar moo tax man la daal combat bu doy waar ko combat la boo xam ne gëj naa fi sax nekk combat choc la moo tax ma ñëw combat choc. gis nga Quench gis nga double moteur xam nga leen ñoom ñaar noo gis a ñaari mbëri ci géew bi léegi arbitre soufflé. ku ne indi na pleine forme en ne taa waaye man dooma attaqué lu ñu wax nga ni jox leen ma Quench jox leen ma Quench mais bu ma lay jël dina am nu ma lay jëlee. parce que bu ñu taxawee ci lamb maag yow bu ñu xoolee suñu euh, plan de carrière maa maa la ko gën le fàq naa bay dem maag jën kayre ñu maag jën kayre niil jën jëli du anta man duma xool yi kiini ni junior wala kaneen Moussa Ndoye ma jëli ko waaye ma jël ndaw luy génn wóorul wóorul kon coïncidence baa bi lenn benn lourdeur di saa yi responsabilité nekkul ci double moteur lépp ci moom la ci moom la aju. Quench moo yore double ci combat. làmb ji yëpp ci moom la nekk. lu ci bëre bi Quench. déglu ko. déglu double moteur ko juumloo. boo ko doole. sutoo ko. làmb ji. poids làmb jéeg yëpp ci kaw Quench da Quench da wàcc. mais Quench li koy réglé mooy observation sans déclencher déglu xale bi. lan la doon wax jox leen ma coince ak lan lay ñëwee ak lan la indi mais bu ko imposer que durant tout le contrat bi ñu si signé contrat ba léegi loox mu indi maaman tey bi léegi si géej bi gis naa mu jox xale bi cër kon maaman ba tuxal na ko respecté na adversaire bi waaye li muy def mooy observer sans déclencher waaw bu ko xale bi sëkk télé def erreur mu xool fu mu pëtaxlu ci moom jeexal làmb ji ko Quench tàmm naa yenu adversaire est-ce que mën naa yenu tey double moteur. Quench tàmm naa yenu adversaire am est-ce que mën naa yenu kii tey. double moteur. Euh, ci façon yenu boo xaajee boo ko xaajee te tàmm yenu yenu wóorul bu ñu xamee mbëri yenu kan ga dañ ne am na sëriñ xam dañ lay dañ lay daaj dañ lay dëj dañ lay dëj bu la daajee loo ni cas du jóg da ngay ñëw da ngay dëju góor maa ngi lay ziar. dellu ziar. ko àndal Coens. man Coens laa toogee fii ak looy def fii. wax dëgg yàlla Coens dafa doon koo xam ne nii damaa yërëm lool ku ma bëgg moo tax ma jóge dëkk dëkk ñëw supporté ko te incha allahu rabi day daan. waaw mais lu tax nga toog fii. ah instant bi ñu toll nii li tax ma toog fii dëgg yàlla Coens moo tax. nga yor lan la lii. non lii moom lii. maa ngi si sant yàlla bu baax a baax li tax ma toog fii Coen si moo tax ma toog fii keneen taxul ma toog fii waaw. sa xel dal. non sama xel dal na mu yàgg Coen si day daan incha allah. lu mel ni saaru perkal la waaye dafa rouge am lu weex ñu ngi koy diri kooku nekk ak double moteur magam la kooku koy diw bagage yi waaye ku wan sa nga ne taxaw. boo xoolee ñoom ñaar fi mu nekk nii neexoon nañ ci yaram de neexoon nañu ci ay yaram ci géew bi présentation day am présentation Double Moteur Quench ñu ngoongu taxaw Double Moteur Double Moteur à gauche Quench à droite bari ñuy géej ak rëbës seen ñaari doom a ngi taxaw cey làmb laat ñaay ne na suma sañoon dañuy mat si niil ma ko déet laat nañu bëre rek lu waay am jël yóbbu Double Moteur yëkkati nay loxoom am na lu ma mag ñi wax ku wen si yëkkati loxoom ah lay jeex na lay dal dinay jeex lay jeex na lay jeex na de bilaay lay jeex na arbit baa ngi leen di passé visite Habib Cheikh Lambaye borom Petersen Jib Sène Jib Pogba borom Petersen doom ak yaay happy birthday to you waaye ana Saliou Khoulé borom la six démb Saliou bi toj nga Sacré-Cœur anniversaire ba waaye Youssou Ndoye l'international ca Espagne maa ngi koy bëggee nan ba tojul waaw da doon tudd tey doomam moom Youssou Ndoye kon sa sànn na suuf sa ca ginnaawam Khadim Bamba Tine ak yaay Couture Bamba borom maris maa ngi lay bëggee Khadim Tine arbitre baa ngi wax ak ñoom Youssou Ndoye l'international sa doom jooju yàlla na gudd fan arbitre baa ngi waaj a soufflé de tey jël la am de dox ba dabante Quench 2009 la ko waa Sénégal découvrir ci lambu dóor double moteur 2015 lañ ko découvrir ci lambu dóor boo xoolee kon juróom-benni at am nañ ko rawante ci làmb maanaam Quench moo jiitu ci làmb arbitre soufflé na Baba Diaw Thiam production fi jaar ñu ngay doxe wet waaw ñu ngay doxe wet rim kaa ko tiir borom Touba Sandaga sama téer boobu maa ngi koy ziar ñaari mbër yaa ngay doxe wet ñu ca saaku ba ñu ngay dem de Xaadim Bamba Tine ak yaay Couture ca maris ñaari mbër yaa ngay lewtoo ana ji bokk ji bokk ba borom Petersen waa arbitre yaa ngi taw wax nañ dëgg dañuy bañ dara lu leen rëcc abi ba na ci caméra bi ari abi borom jiloor yaay filma loolu Babacar a koy reporté ci Equivox TV waaye Saliou Khoule bëgg naa la borom anniversaire bi sa anniversaire neex na eh daw nañ jàppante daw nañ jàppante xeex amul dara amul Quench dugal na benn daw nañ jàppante daw nañ jàppante Quench sa leen wan ginnaaw Double Moteur Quench Quench jël na tànk ba mu bañ da koo bëgg a jëli loolu bëreem la waaye Double bañ na loolu ah Double Moteur Cuenca am na lu muy selsele Cuenca nga koy puus Cuenca ngay dóor benn yoon ay bii combat Cuenca bi mu fi mujj daa mat si niil ak Diène Kairé double moteur dugulal Sarr daan fagala Daouda Sandis taf mu bañ nee na dañ koy réglé moom double moteur door ci faar ku nekk a ngi ñam sa morom Quench si ngemb la laa ilaha illallah ñoom ñaar ñëpp Quench si loxo droite am jàpp na ah Quench loxo droite ba jàpp na Quench loxo droite ba jàpp na Omès loo gis. bon maanaam de force rapport de force la. parce que contact bi contact bi dafa jom jom naan yëpp moo bi donc a manœuvre bi. donc dañuy am manœuvre de force. waaw mais il faut aussi avoir la force de manœuvrer. donc loolu mooy bi ne bii actuellement ku njëkk a siggi. waaw boo moytuwul nga ñàkk combat bi. ku njëkk a siggi ñàkk ku njëkk a siggi donc parce que xe combat suuf la. ci suuf la voilà ku nekk jàpp na benn loxo. ok donc liggéey bi yëpp dañu essayer am mettre en danger. kenn ki pour yow avantage. donc loolu la ñu war fi ne nii. loolu la ñuy war wax na dëgg nee na ku njëkk a siggi ñàkk tekk na ko e eh, Quench raam na caxabal ba daa sori Quench Double Moteur bañ na. cabaxal bi dafa suufee. dafa suufee sori. sori donc loolu avantage yoo ko erreur la daa direku mën nañ laa fàq nga daanu aaway Quench loolu mu def sànq danse la laa ilaha illallah bii combat ay bu jaawale lii ana Adama Ndiaye foo tooge ca Italie fan si club Babacar ak Equivox Awa Diop Asi maa ngi bëgg képp ku may siifir waaye Aliou Sall bu yankaaw taal bi sëñ Babacar si marché asalem ñaari mbër ci géew bi bëre ñaari mbër ana maa ngi kuen sa booy ana xaadim jaxate sa mbër maa ngi kuen sa booy tey la 7 novembre tey la lii leer di leer eh faq romba eh laa ilaha illallah fii de mu romb ko double moteur ci suuf rek la bëgg dem cey bi combat laa ilaha illallah Quench daa jàpp rek ne du bàyyi Quench daa jàpp rek ne du bàyyi Quench nanguwut a bàyyi Quench nanguwut a bàyyi parce que loxo droit am boobu mu jàpp des fois li mu bëgg bu ko wàcc ci suuf jéem a yëkkati waaye ndax lool dina yomb mu ngi koy kal kal ba bañ na loola baaxul ba tey Double Moteur daa mel ni dis na Omes ah Double Moteur dis na ci combat bi daa mel ni non ñoom ñaar ñëpp euh, boo gisee dañoo tolloo doole. waaw ñoo tolloo taille. waaw ñoo tolloo poids. donc différence bi mooy technique bi. technique bi moo def moo ci des moo ci région ñaar. mais Quench boo xoolee ba tey nanguut a bàyyi fi mu jàpp ah. effectivement parce que jàpp boo jàppee. waaw da ngay liggéey. gisoo mooy liggéey. waaw keneen ki day défendre mais actuellement. double moteur defoon àtte. waaw indiwaat leen ci bi ñu bëraat pour ñu am avantage de relance ce combat. ok combat dañu ko relancer ñu relancer ko wax na dëgg caxabal na ko dina ko daan lu xew. oh loolu man tas daa sori Grand Thiandoum caxabal bi dafa sori. waa dafa sori dafa suufee. Ah, parce que booy door caxabal da ngay da da da da ngay déclencher action. nekk en mouvement. ba pare sañe xal mbër mi. mais mënoo nekk dans une position statique. ba pare bëgg a caxabal non ah, non. joxe na jox na ko double moteur. non non dañu bëre ba génn avertissement warul am. warul am. ndeysaan kookoy Malick Thiandoum TFM. d'accordul ci avertissement double moteur parce que nag dañoo bëre ba génn combat bi man de bu yàggee duma pet waaw ñaari mbër yee mel noonu eh Gwen si dóor na ko droite daw jàpp ko boo xoolee Quench mu ngi koy dóor mais mbaa Quench gis nga daa bëgg taf waaye Quench sax xam na loolu de ma Moteur ko tafam boobu ba tey mënagu koo def ndax Quench da koy gis Double Moteur fi Quench tee dëgër na de coach coach sukaay fi fi Quench dugal loxoom yi waaye génne na ko di dóor xool loxoom bi droite blanche ci ngembali mi ngi manœuvrer baax na mais il faut mu am li ñuy wax moment de récupération moom Quench waaw la récupération passive ci biir mag combat bi parce que mënul am récupération active parce que mi ngi forcé di forcé di forcé donc autant que mi ngi forcé keneen keneen ki di résister moom mën na dem ba épuisé wu parce que li muy tenté day dem ba jeexal donc asib bi dootul ma amee répondant donc il faut mu tey. moom moom ma moom Quench. moom Quench il faut mu tey. il faut mu tey. actuellement initiative yëpp moo koy jël mais gis nga mi ngi insister te kër la koy déglu donc bu ko contrer mën nañu ci am jafe-jafe. est-ce que li mu waxoon ne kiitu du ma moromam du loolu la bëgg a wane. waaw loolu bëgg a ma la il faut que mu tey teeyaay bi nag moo di ñu bañ a yàqam ci li muy def di ko benn par benn mais bu fekkee ne bu insister pour uniquement. cabaxal euh, ko ou bien uniquement xel jëppal gu même kal ko boo ma tul lañ ko ko traité day daanu. Ndaysaan wax na dëgg waaw parce que nag xale bi dafa andi doole comme moom comme faw ñu seddoo bés bi waaye Quench boo xoolee ba bi soufflé ba tey mu ngi serse taf placage boobu est-ce que mën na ko cee daan moom double moteur. mais moo tuuti. Ah. moo ko ëpp doole tuuti moo ëpp doole ah. tax Double ko combat bi Double Moteur da ko bàyyi combat bi xool ay faiblesse ay faayam mu utiliser ko donc tactiquement il faut que mu calculer. wax na dëgg loolu tey day sori ba tey. dafa sori parce que xëy na moo sori il faut mu jege mu wàññi centre de gravité bi. bien sûr parce que dafa mel centre de gravité bi lan boole. loolu la ñuy wax centre de gravité du couple. ku ci jiitu njëg ji am fa force d'attaque. poste d' boobu moo lay permettre. na lu xew. mi-temps mi-temps. Double Moteur a ci médecin bi. dafa dem Ardo. Double mu mel ni kon euh, boo xoolee tamit Quench mu ngi seet sa bopp ba tey ba yóbbu na ko sax Ardo. waa Quench moo moo gën a jël initiative ah bu ñuy xool moom moo gën a diriger combat bi moo gën a ëpp lu mu tenté mais li muy tenté aussi day lu muy forcer. mooy caxabal bi xam nga def mi ni lii laa bëgg a def te dama koy def par force moo tax ñaari caxabal yëpp échoué ci xeex bu sew bi aussi ci la touché double moteur donc double moteur actuellement il subit le combat mais je pense bu ñu sifle waatee war na mën a jël initiative mais euh, Quench bu moytuwul dina dem ba sonn parce que bëre doo jël lépp yanu ko day am benn instant boo tante tante waat tante waat jàllul nga téye sa bopp ba récupérer mais bëre di nga bëgg mu gaaw mu yeex nga bëgg mu yeex mu gaaw donc da ngay def ndànk-ndànk rek loolu moo am solo. xaw ma lu xew nag jël na ñaar avertissement dem na Ardo moom Double Moteur kon boo xoolee actuellement. Quench moo gën a avantage ci combat bi. waaw parce que euh, euh, parce que mi-temps nga ñu. parce que donc su je vois du mi parce que arrêt arrêt la woon. voilà donc initiative a ngi nii donc actuellement moom moo am sur le combat. Ah. mais il faut mu tey. moom Quench. waaw na tey. waaw bañ a topp support dominer dominer c'est pas dire gagner. waaw dominer du ah. yaay gagner donc moom na tey respecté ko dox ci koom. ba fexe amaat encore benn troisième avertissement psychologiquement mën ko préparer. am na solo wax na dëgg dominer ça ne va pas dire que ne yaay gagné double moteur lu mu bëgg a def ma moteur loo bëgg a def double ma mbaa nekkul ci jafe-jafe Habib Habib double mbaa nekkul ci jafe-jafe parce que boo xoolee Covens mooy diriger combat bi. moo yóbbu Ardo loolu baaxul est-ce que droite ba mu sànni yoon la. non eh, coup perdu parce que coup de la rek. moo jiital gauche waaw coup de dégagement nekk parce que mënoo jëlee gauche la pour mën a def crochet court bien crochet long actuellement Double Moteur boo gisee jàppante bu la bëgg parce que loolu loolu parce que relance baax. am na solo parce que mënoo taxaw. di sànni ci droite te double daf na ko sàng erreur la ah way goes bi ne di gën a defal jàpp-jàpp bi ñaari loxo la bëgg a jàpp wala mu liggéey mais benn loxo bi mu jàpp ba léegi bàyyi ko ba léegi bàyyi ko mais aussi mi ngi koy andil ay jafe-jafe ci ay dóor pour mu bàyyi xam nga euh, mi ngi sigi. mu ngi signe rek. mi ngi sigi. di bi en même temps mi ngi sigi donc na. moom sonn daa ni coono laay ma est coono amul ci moom. mooy récupération mooy wax sànq. Ah, il faut ah, mu ngi Quench sang koy teg lu métti ah. bien sûr mais euh, initiative ah, boo xoolee physiquement daa mel ni Quench. daa na a oyof. moo gën moo di. avantage bi mooy la récupération bi mu am. parce que boo amuloo récupération boobu. du du du mën def lii mu def. parce que endurance continue la. bien sûr waaw. Tàmbali a avantage bi ngi changé sur la forme. c'est donc ñaar loxo yi. bien ñaar loxo yi jàpp ma double moteur. jàpp na donc day mu jeex. mais day bañ. am na fu oh. na ko tee. daw na jëli. jeex na double non bul ma teer. bari ni combat mu ngi bëgg a metti parce que Kouwel sang koy dem na bay daw xoolal lii. xoolal lii Double Moteur daw na de. Double Moteur daw na. Double daw na. aaway. Ah aaway. Ah waaw. lii la Double Moteur daj na lu méttee métti ah way li muy daj actuellement métti na de parce que nag xeex bi mane nañ ko ci ah way porotes daam sax da lakkal fi mu nekk abi Habib metti métti Double Moteur dem na koen dub ci ar ci ardo bi ñaari yoon maanaam faj nañ ko deux fois ah waa Rebeuss seen mbër mii da tey li muy daj na ci moom ku wen si daa mel ni ku bëgg a gérer combat ndax ay avantage am ci avertissement yi oh door na ko mu daw génn yóbbu na ko ardo jox na koy avertissement kon daa mel ni Quench moo appova Quench mooy dirigé Double Moteur ci ñetti avertissement dem ardo daw na jëli waaye baaxul Double Moteur daa diib xaw ma poids bi la xaw ma mais daa dib lool te am na combat yoo xam ne ra eh Quench dina ko gaañ de Quench dina ko gaañ de Quench dina ko gaañaat de physiquement daa mel ni Quench moo gën a pare booy yi bu wàcc waa xandaalu yi bu leen wàcc lii laal ah way bu ñu de amul wàcc de li atte tooñ la de laa ilaha illallah bilaay Quench jàng na xeex Quench liggéey na ci xeex ci biir combat lii mooy euh, entraînement bu baaxul waaw ah, way parce que mënuñu na jox combat nga préparé ko waaw quinze minutes nga donc je crois a problème sur son en tout cas encadrement ah, y a problème sur son planning parce que booy dañoo tàmm beru léegi mais loolu moo dul yoon. ku ci jël combat mbër day am entraîneur. sa écrit. mbër day am entraîneur. sa écrit. parce que boo amul entraîneur doo xam li def. Ah doo ko doo mbër day contact ak i adversaire ak i moroomam. mais bien sûr parce que. mbër day contact. ànd ak gërëm copain. Ah di entraîneur am combat. yomb actuellement. je kon si mooy développé ah. def lépp kay na def attention def dàq. parce que erreur mën na ci am. bien sûr donc boobaa dañu daan donc consigne la nangam nangam ah mais donc mu def dàq. mu ak li ñu loolu critique loolu gisoo mi koy jëm a génnewaat pour xew atte atte man daal làmb bëgg naa ci mbër bu 5 heures jotee nga sos yel gàddu sab dem ci écrit wa bëgg naa ko ci mbër de mbër day contact lu bari mbër da ngay waaye boo jëlee combat des fois nga beru ah yooyu tamit dafa xaw a doy waar te entraîneur yi faw mbëri déggal leen waaw Cristiano Ronaldo succès bu rëy la yor te dañ koy entraîner di ko teg ciw yoon Lionel Messi kala zalika naka neenu Sadio Mané international ab joueur bu mag la ci réew mi wala ci àddina bi waa Jürgen Klopp mooy entraîneur am di ko wax li muy def ak fi muy taxawee am ñu ko yor ci wàllum physique loolu lépp dañ koy liggéey. teg bâche soo dee dox day oyof mais fii nag fii luur la fii bu sa tànk dëgërul soo liwaatoo ñaar yoon doy la sëg. mais Double Moteur luy jafe-jafeem tey. soit entraînement matul ou bien nekkul. lan moo tax dama seetlu léegi bëri na lu muy am ku ci jël combat. su ñëw ci bi lu bari te contact seen kër daan na lu bëree bari de. yooyu yëpp defe naa ci defu coach la quoi parce que defe naa mbër bu entamé combat lu mat 6 mois war na physique ba mu mat war na contact ba mu mat war na boxe ba mu mat su ñëwee mu ñëwee wane ko nit ñi xam ne kii fi mu nekkoon toogoo fay nelaw mais kii amu lenn lañ ñu mën a wax moom parce que gisul lenn lu mu def waaw. kookoy Père Ndiouga l'entraîneur de Modou Lo waaw moom ancien wu écurie Fass la arbitre bi tang leen di soñ Quench moom actuellement ay avantage am lay sàmm. Ah, gestion de combat. Ah, wax na dëgg nag. gestion de ay entraîneur gis nga door na. et puis dafa am ay ay ay uppercut gauche yu muy utiliser pour bañ ñu song ko. Ah, un. fële. benn ci Quench. lëkkaleem quatre. léegi ci double moteur. moom moo war a bëre. bu taa bi da ngay ñàkk combat. da fi mu ne bu Quench joué ci kawam day ñàkk combat bi. su ma doon Quench nag ma dem damay taxaw xaar ko. Ah du dem fenn damay taxaw. ko ci bëre. Double Moteur doon na droite. Max wax na ko parce na ci géew ah, am na expérience xam na ah. loolu mooy làmb. donc da ko jox bi. wax na dëgg kon Quench léegi day gérer combat door na ko góos. Double Moteur am ngay jafe-jafe yu doy waar tey bii combat boo ci jógee ak loo ci mën a jógee war ngaa xoolaat bu baax a baax mbir yi ah way parce que nag ah combat bii doy na waar ci tey Grand Laye Ndiaye mbër mi di Quench Boy Double Moteur dem na ardo ñaari yoon am quatre avertissement dàq nañ ko mu génn géew bi ça veut dire que kon tey jii xaw ma lu mën a xew waaye ci yoonu ñàkk combat bi la taxaw moom Double Moteur waaw ndax nag mi nañu ba nekk ci seen deuxième mi arbit arbitre bi mbaa tas combat bi toppal ma loolu Habib arbitre day tas combat bi da koy tas jeex na toppal ma lee cinq avertissement Quench gagné na ko Quench gagné na ko Quench gagné na ko ah way Quench gagné na ko lii mooy woon ne Lansar am nañu encadrement bu baax barki maa ngi man bari ñaa ma seen fay double moteur damaa gis xeex bi yaa ko si mane xeex nga ak moom dóor ko ba mu génn géew bi bëre bi yaa ko ci mane mu mel ni yaa ko gën a pare ci côté yëpp dañ may jox sama morom dañ ma joo la déggee deux comprendre nga wala Ama Baldé Modou Lô ku si daan ñu jox ma ay mais ay combat ay combat yi waya waya yi bëre waaw ko waroon jeexal de mu mel ni Quench serse na bëre waaw dominé na ci xeex lan moo tax sax combat bi jeexul ci jël comme ni nga ko waxee woon waaw parce que bon Quench cherché na pour am euh, faay bi ci combat bi mais bon mu jëw ko am parce que booy xool xale bi dafa diis xale bi booy xool roxo bi chargé na mais day euh, genre xalu ndéef la day gëmm ba ci yàgg nit waa du fay waa jëm na tante euh, pour daan ko euh, jëm na bëre xale bi jëm na ko dóor jëm na ko déstabiliser mais xale bi dafa diis xale bi dafa diis te Quench aussi combat bi affaire galaaj daf ci feeñ. Ah, galaaj feeñ ci ñaari côté yëpp ci ñaari côté yëpp. daa am jàpp. jàpp dindi jàpp dindi daf ci am ak négociation. mais côté xeex bi ñu doon xalaat. daa mel ni Quench tey dafa ñëw ak xeex. waaw mais xeexul. no non non Quench yóbbul xeex. Ah. Quench li ko doon génn ci combat bi mooy taxaw xeex. taxaw xeex xeexu jàppante bi moom la war kon def. xeexu jàppante bi da nga koy blessé rek mais mënoo ko yóbbu fenn. voilà mais bu taxawoon xeex ci lay ëpp avantage. mais Double Moteur luy ci combat. jafe-jafeem mooy fraîcheur physique laa xam ne des na ci moom. liggéeyu ko waaye. Double moo bëriwul lenn. dugul bëriwul leen. déedéet jox leen ma diw. soo ko waxee buñ la ko joxee boo ñëwee da war a wane li tax nga laaj ko. kon dugul daa wane ba tey boppam ci bés bi. waaw maa ko laaj. maa ko laaj jox nañ ma coins jox nañ ma ko danaa bëreeg yow ba daan la mbaa ma bëreeg yow ba daanu mbaa ma bëreeg yow ba ñu mat si niin mais lan mooy jafe-jafe ni daanu du ndamu ki laaj mat si niin du ndamu laaj daanay ndamam mbéyge du fu wér sa njàmbur xeexam moom xeex bu metti dominé ko ci xeex bi saa jàmbur gaañ ko ñu faj ko delloo si ko mu dóoraat ku suñ ko faj band ko lant ba naaw mbokk yuuxu ni nañu arrêté lamb ñëpp kii munu ma da ma daanu du sama way match nul du sama way maa ko mën fuuf deret ji war a génn la ah, mbéyge sanjam xàll leen xàll leen xàll leen géew ma daan ko ñu ma ne ñu bëri mu petit nan lay xàlli géew bi keroog ñoo xàll géew bi ñu ñu mu bëree daan mu mu gëdd ko xeex ak moom sànjaambur répondre mu fel loxo ba daw dëbb ko bal euh, euh, sol ko sarale loxo ba ëñ ko tibb wax taf ko rek daal di ko sukkër bi mu daanu mu jéggi fekki waa cumi kaay sànjaambur ni leen euh, da ngeen xam dara. kon tuubu looloo ko way mbër boo ko laajee da ngay wan leen li tax nga laaj ko daan ko mooy sa cër. wala nga bëreeg moom ba àddina xam ne bëre nga boo daanoo ndam la nga bëreeg moom ba àddina xam ne bëre nga boo mat si ni leen ndam la. kon sa fu mu ju ndam kon sa fu mu ju fu ko neex. laaj na la de guerre de fu ko neex wane na wane na boppam ci fépp. fii suuf la fii bokkul ak Iba Mar Diop fii du baas bu la neexee teg sa tànk mu dem fii booy teg day gën a nuur mbër day contact man loolu laa xam ci mbër de mbër 5 heures da ngay wàcc ci écrit bi. takk sër di contact ba 19 heures bëreeg Moussa bëreeg Cheikh bëreeg Daouda bëreeg Mamadou Diouf pour nga mën a am yow lii tax ñuy wax mbër maanaam bëre nekk ci yow waaye nag mbër moo xam ne ah yow da ngay jël combat daal làqatu benn place léegi looloo xew boo ko defee nag fii moom ate tooñ la kenn du dugg ci géew bi arbitre di ëffal rek la man waaw Quench félicitation li Papa Thierno Ndiaye wax moo ci am ça veut dire que double yaa laajoon waaye nag kon ni nga bëree kon baaxul gagné nañ la ci gagné boo xam ne bu doy doy waar la sa nag xale la boo xam ne macha allah liggéey na kon gaay dama leen di jox dig daje rek ah semaine prochaine Dieye production mooy ñëw ak ki nga xam ne mooy Jackson bu way ak naaru Sogaas ba tey bu Pikine nañ ko bàyyee xel waaye gars yi daal làmma ngi noonu waaye Aliou bu Yankaaw taal bi sëñ Babacar si borom marché Thiaroy moo gën ay yére ci Sénégal moo ma solo lii ma sol Aliou Taal bi sëñ Babacar Si maa ngi koy bëggee waaye ki nga xam ne nii mooy Jibi Bamba borom Grand Yoff Jibi Bamba yàlla na sa jàmm yàgg Omar Saliou yéen ñëpp bëggee naa leen parce que ñoom samay soppe lañu gars yi ba beneen yoon waaye wax naa leen ko waxati leen ko gis nga géew bii jox leen ma mbër ak a yomb waaye fii la mbir mi ne lii bi